nit toujours sa mémoire bu dee fàtte lu bari dafa fekk ni sa xol duy fàttaliku yàlla lu bari moo tax bu bëggee sa mémoire di dund du fàtte lu bari del dundal sa xol ci fàttaliku yàlla parce que mémoire seetu la bu nekk ci biir xol gis nga booy sango ci salle de bain sangoo ndox mu tàng te fekk amul aération gis nga miroir bi noonu koy affaire bi di muuree ba dootoo gis sa bopp loolu mooy nisyaan donc seetu bi nekk ci xolu nit ñu di ko branché ca lawxu ba mooy itam am na yu ñàkk fayda yoo xam ne boo ko defee ba mu dur ci moom loolu dootoo mën gis sa bopp loolooy tax nag foog fàtte gi di am moo tax ñu bëgg zikr du looy def ci sa làmmiñ kese mais sa xol mooy dundee di fàttaliku yàlla jamono bu ne moo tax toujours boo gisee salli ala man allamak loolu koy indi mooy bu sa xol di dund yenn façon yi lu jot rek sax bala nga koo ñaan yàlla yàlla placé ko moo tax jàmbat bu bari bi dafa am loo néewal rek mais boo ko néewalul te jam lu